وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أيها المشاهدون الكرام نحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di siyaare ci bis bu tedd bi di leen ah, wax ne ñu ci suñu tafsir bi tey nag la ñuy commencé suuratul Baqara baqara nag turu nag la nag aw nag lañ ko tuddee moom saari alquran nekk na saar ak ak ñeent cent saar moom la téeméeri saar ak fukk ak ñeent am na si yoo xam ne màkk lañu wàcc moo ëpp nag am na si yoo xam ne madinatu munawwar la wàcc màkk suñ ko waxee mooy jamono ji yonent bi sallallahu alayhi da nekk màkk ak fu aay mënta wàcc fu saara mënta wàcc gannaaw fekk na yonent bi déplacé bu jële ko màkk dem feneen màkk lañ koy tuddee gannaaw bi mu déplacé màkk nag ba dem madinatu munawwar saa lu wàccati day naan saar yu saar yu madina la wàcc mu nekk ñaar téeméeri aaya ak juróom-ñett fukki aaya ak juróom-benn mooy lu gën siw mi attaani wa sittun wa samaanuuna aaya mooy aaya baqara alquran lépp yàlla mu ngi ko wàccee mu jee ko ci la mahfuz ñëw ci baytul azza foofu la da wàcc ndànk som par som diiru ñaar fukki at ak ñett vingt-trois cent yu yonent bi am ci nubuwa gi loolu alquran wàcc su gaa yi indee mbir rek alquran wàcc alquran wala yaatuunaka bi masalin ilaa ji'naaka bil xaq wa axsana tafsira li ko mas a jéem a laaj jëm ko finnaar rek alquran ñëw tontu kon baqara mu ngi noonu xam ne junne amar digle amar mooy impératif xam ne junne nahyu tere loolu yëpp mu ci suratu baqara ak njëriñ yi nga xam ne aju na ci saar bi bismillahi rahmani rahim bismillahi turu yàlla commencé sumay wax ak sumay jëf arrahman yàlla mooy yërëm bépp jaam ci àddina ku ko nangul ak ku ko nangulul koo gëm ak ku ko gëmul yépp yaa ci yërmande yàlla borom xam-xam yi nee nañ yërmande yàlla bu nekkee téeméer 99 ah, yëpp yàlla ko dencal jullit ñi keroog yomal xiyaam benn bi la indi fii ci kaw suuf ci la doomu aadama da yërëmante ci la rab yi àll yi da yërëmante ci la njànnaayo da yërëmante lépp ci la ñoo yërëmante la ca des nag yàlla xadoo denc ko parawaare ko jullit ñi keroog yomal xiyaam <coughs> bu ko defee léegi nag arrahman yàlla mooy yërëm bépp jaam ci àddina yërmaande yàlla ci la ñuy dund arrahim yàlla mooy yërëm jaam bu soob ci yowmal qiyaam te mooy jullit ni alquran wa kaana bil muminina rahima yàlla nekk koo xam ne ku yërëm jullit alif laam miim yàlla moo xam lu namm ci araf yooyu moo gën a siw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ ko daan firi gannaaw bi fi yonent bi joxe ko ba juróomi téeméer ak firikat yëpp <coughs> loolu lañ ko daan firi bu loolu passé la ci borom xam yu commencé jéem a dugg seen mbir ñu naan alif gi li laa junji laam gi li laa junji mim gi li laa junji waaye ñoom itam sa dugg ci loolu dañ dema dema demam yàlla ne ah li daal yàlla rek ko xam zalikal kitaabu bii téere dama def saalika xam nga saalika lu daan fir danaan saa ismu isaara laam lil box di kaaf xarfu kitaab xanaa ko doon ka ma wax saalika kitaab bële bële waaye wax ko def na bii téere daf ko wàccee waaye lu sori ndax alquran ñu mel ñëpp mënuñ koo am ñëpp mënuñ koo jot moo tax mu màggal alquran wàcce ko wàcce waaw sori fekk nag zalika bi mën a haasal kitaab bii <coughs> téere bi nga xam ne yaa ngi koy yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa rayba de benn chik chak fii nekk ci téere bi ne mu ngi jëye ko ci yàlla téere bi lépp mu nga jóge ko ci yàlla yàlla jox ko jibril ma wàcc ndànk-ndànk dañoo si yonent bi sallallahu alayhi bi it jox ko xeet yi xeet yi si bokk yem ku jàng jël ci sa wàll ku jàng nag ba tey mooy loolu xudan téere bi njub la dafay gindi lil muttaqiina ñi ñu ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom dañ jëriñoo ci téere bi ndax day topp wax wax téere bi ci ay digleem bàyyi ay tereem ñan ñoo ñi ragal yàlla mun allazina mooy gaa yi nga xam ne yu'minuuna dëggal nañ bil xaybi ci lu fàddu li nga xam ne gisuguñ ko te yàlla wax leen ne bu ngeen dajee ak man dinaa leen ko jox ñoom gëm nañ dëggal lu ngi mel ni ki dekk am na ku dee danga dekk ndax ku gëm nelaw yeexu war nga mën a gëm dee dekk ku dee danga dekk ak itam ku jëf jëf ju baax yàlla fayala aljanaam ku def safaan ba yàlla fayala safara loolu dañ ko war a gëm ko defee nga dem wata ndekk nga def lu baax rëcc rëcc yi nga ko jégul sa borom da ko réccu yàlla jégalu ko ci mbaaxam waaye yokkee wala julli ni mooy ñi xam ne dañuy taxawal asalaatu julli waxul wa yu taw na kon julli dañ koy waajal ca wàccaay wa bu fekkee da war a demal sa si nekk sa yaram nga julli ba set yére yi ngay sol da julli na set place bi nga taxaw da julli na set yuqi moo dajee taxawal asalaatu julli am ma lenn la nga xam ne rasaqnaahum jox na ne ko ñun yàlla ñoo leen ko warsagal yun fi xool dañ cee dépasse ñu cee dépassé ci topp yàlla bekk asaka moo ci war dañ ci génne asaka waaye duñ ci am dañ ci dimbale jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo leen tene wa bil axirati si ñëw al axira wala wala si ne moo ñi nga xam ne yu'minuuna gëm nañ bi maa ci la nga xam ne unsila wàcceef na ko ilayka ci yow yonente bi sallallahu alayhi ne ko si yàlla wàcc si yonente bi sallallahu alayhi ya nga xam ne unsila wàcceef na ko min xam di ko muy tawraat muy injil sabuur suufu ibrahim téere ibrahima ak yeneen téere yi téere yi nga xam ñoo ko ci ko asamaan julli ñu gëm nañ téere yëpp wa bil axirati ci ñëw àllaaxira hum ñoom yooqinoona dañ ko wóolu xam ne nañ àllaaxira dana ñëw yomal xiyaam dana ñëw te bu ñëwee kenn ku si ne yaa dana taxawal yaa moo ngeen taxaw yàlla rek la la ba nga defee ne yow rek la yàlla rek la ndax ku dee si yomal xiyaam taxaw na man maa tax faqat xaamal xiyaam duhu asuxra ku dee si yomal xiyaam gu ndaw taxaw na yaa ngi xaar ñëpp dem muy xiyaamatu kubra walaayika ñu ne la gaa yi xalaa hudan aji nekk lañ suñ jub min rabbihim bu tukkee seen borom ñu jël melokaan bi meloo ko ñoom dañu suñ jub boo xam ne mu jëlee ko seen borom walaayika ñu ne la gaa yi hum ñoom al muflixuun ñoom rek ñoo ñoo ñi nga xam ne ñoo texee ñoo mucc ci safara seen dëkkuwaay nekk aljana alquran ak aadaam dafa baaxoo su waxee melokaanu jullit daf saay teg yéeféer teg ci naafiq ñett ñooyu dafa nekk jullit piir yéeféer naafiq naafiq mooy borom ñaari kanam yi ina de seen or na gaa yi nga xam ne kafaroo weddi aboo joxli ci la bokk ak képp ku mel ni moom sawaaxul aji yemoo la xam lihim si ñoom a am sartuhu moo xam waar nga leen yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lam tunsiru wala waaroo leen laa yu'minu du ñu gëm ñu xas ba wéeti jeex na ñoom du ñu gëm yàlla xam ne ñoom yàqu nañ boo leen waaree yow yonent bi wala waaroo leen yow yonent bi sa sahaaba ñoo waaraat wala saaba yi waaraat wuñ sa borom xam-xamu xeet bi ñoo waaraat waaraate koo xam ne yàlla nangu ci moom ak jub ak gëm munoo koo waar ba gëm mooy ansartuhum am lam tumsuruhum wala waaroo leen laa yóomee duñu gëm xatama kastana allahu yàlla ala qulubihim ci seeni xol la ca waroon naa fa ñu war na gëmee yàlla fu leer waroon na dugg foofu la yàlla kaste daf leen jëpp nag jëpp gi moo tax mu kaste seen xol waaye ñàkkut dee nga tooñ leen xatamallaahu ala qulubihim wa ala sam'ihim waroon a déggee dëgg dootu nangoo te wax dootu nangoo dégg dëgg soo leen a wax du la sax wa ala absaarihim ak seen gisuwaaya nekk na seen kaw gisuwaaya xishaawatun muuraay muraay bu rëy moo ci nekk ba mënuñu gis dëgg gi nga xam ne moo jëyee ko ci yàlla wala hum ñeel na ñooñu asaabun mbugal azim bu màgg màgg mu nekk adjectif qualificatif moo naa wax rek wala hum asaabun mbugal ñeel na leen mu indi azim nga xam mbugal man mooy toll mu soog a ci naafiq wa mina naasi ama lenn ci nit ñi man koo xam ne yokkoo daay wax na aman naa gëm nañ billaahi yàlla wa bil yawmi ak bis al axiri bara aji mujj gëm nañ yàlla gëm nañ yowmal qiyaam gëm nañ ci ne addina bi dafay jeex tàkk dafay jóge ko yàlla ne wa maahum den ñoom ñooñu bi mu'miniina ñi da aji gëm de dara dañuy wax rek seen làmmañ waaye dañuy wax agul seen xol wa maa bil mu'minin yu xaadixoona ni ngaa jéem a wor allah yàlla wala seen ak gaa yi nga xam ne gëm nañ ni ngaa jéem a yàlla ak jullit ñi ndax ñi ngaa feeñalal jullit ñi ak gëm yàlla goo xam ne nekkul si ñoom pour rek seen seen alal am sécurité seen der am sécurité kenn du leen def dara waaye wa maa yu xaadixoona woruñ ilaa anfusahum dara seen bopp wa maa yash'uruun te xamuñ ne ñoom seen bopp la ñuy wor xamuñ loolu ñoom ñu ngay jéem a yàlla da jéem a wor jullit ñi da jéem a pexe pexe wor te xamoo ne pexe laa këpp nekk ci pexe yooyu da naxante li nga def dara nekku ci dëgg pour rek nga am sécurité sa am sécurité sa njaboot am sécurité nekk ci yëfu caaxaan yooyu ba xëy def sa borom defee daan jaamu yàlla ñu la yow rek bokkoon fi ñu jaamu yàlla yow naaf nga woon waaw jogal safara nga jëm loolu xam nga lu mu gën a nit yonent bi benn bis xutba na ci madinatu munawwara xutba goo xam ne balaa muy xutba dafa ne képp ku mu tudd tudd sa tur jogal naaf yàq xam nga sax ko mu ngay dimbala gars yi waaw bu defee léegi ku doon nga jéem nga jéem a defaraat sa bopp tuub jéem tudd si góor ñi tudd ci góor ñi lu toll ci fanweer tudd si jigéen ñi lu toll si fukk ak juróom-ñaar mu ne 47 naafiq ñëpp taxaw si jàkka ji mu ne ñi ñëpp ay naafiq ngeen ñu tudd yàlla waaw fii xuloo bi nekk na seen xol ñoom naafiq yi maradun feebar may feebaru sikk sàkk naafiq day sikk sàkk toujours te li nga koy wax fa zaadum dolli leen allahu yàlla maradan beneen feebar mooy mu wàcc alquran nag ci yónent bi ñoom ñu nga sikk sàkk est ce que yónent bi yàlla ko yónni Muhammad yàlla ko yónni wala yu yónnul ko yàlla far wàcc alquran nag ñu gën a xam beneen sikk sàkk wala wum ñaan leen ci yowmal qiyaam azabun mbugal moo xam ne alim aji métti la bi maa ca xam ne kaanu nekkoon nañ yàq si boona da ko weddi yonent bi sallallahu alayhi wa da ko na waxeef na loxum ñeel naafiq ñoom gaa yi laa tubsoo bu leen dox da yàq fil ardi ci addina bu leen dox mukk da yàq ci addina bi xaaloo ne innama nahnu ñun rekk muslihuuna ñooy yiwénal àddina bi ñun kay jega fu njàq ñun rekk ñooy yiwénal àddina bi yàlla delloo leen yàlla ne ala dama ne innahum ñoom hum ñoom almufsidoona ñoom rekk ñooy yàqkat walakin wante ñoom laa yash'uruun yëguñ loolu xamuñ ne ñoom ñooy yàqkat yi day yàq nekk yàqat mag te doo ko yëg moo gën a bon bi ñu waxee nga ne man yàq ma def ma dara te fekk yaa nga tukkal àddina bi isa xila nga waxeem na lahum ñee leen aminoo gëm nañ gëm leen kama amana comme ni ko la gëmee annaasu saaba yonent bi sallallahu alayhi wa ak jullit ñi gëm nañ loolu xaaloo ñu ne a no mi ndax dégg nga xaaloo ñu wax ne a no mi ndax dañee gëm kama na comme na ko la gëmee asufaha u jaahili ñi nga xam ne seen xel dafa manqué muy saaba yi mu a seen xel moo des dañeen seen seen xel dafa des moo tax ñu gëm yonente bi yonente première fi awali wax ci commandement wax dafa wax rek gaa yi daanu dem gëmi ko seen xel moo des mooy sufaha sufaha mooy koo xam daanaka lu ma def xamatu lu bëri soo ko joxoon six cent mille a dugal naa ko fii mu ngay jënd fële lu lu am solo mu jënd lu am solo mu jënd ba xale bi kay dem yaa ne ala dama ne innahum hum ñoom asufaha aw ñoom rekk ñoo dese walakin wante ñoom laa yaxlamuuna xamuñu loolu de isa loqoo bi ndajee ñoom naafiq yi alla si ne gaa yi nga xam ne amunoo gëm nañ xaalu ñu ne aman gëm nañ lu ngeen gëm wisa xalaw si delloo ñoom naafiqi ila shiyaatina dem seen kilifa ya xaalu ñu naan inna ñun maakum ñu ngi ànd ak yéen innama nahnu ñun mustaasu oon dañuy yéege dañuy soboota julin bi dajee ku mel ni okona kaabul ashraf moo ko daan def dajee ku mel ni ki abubakar sadiq xali xosmaan xomar daje abubakar sadiq te tagal ko baax waaye moo lewet waaye ma bëgg yonent bi nangam li nga gëm-gëm nañ ko dajee Osman waaye moo tabe moo lewet moo bari kes tagg dajee Ali dajee Omar xamoon na ko bul naafiq yow naafiq nga sa jikko ji ngay wax jikko naafiq la alxuraan ñëw xam nga ko ne ay naafiq lañ waaw <clears throat> innama nahnu mustahzi'un dañoo sobet jullit ñi day feeñal ak gëm yàlla te gëmu yàlla waaye allahu yàlla yestax u dana fayee seen sobatu bihim si ñoom leen doon sobatu yépp yàlla dana leen ko fay walaay que ñu ne la gaay allazina mooy ñi nga xam ne ishtaraw jëndee nañ addalaata ak réer bil hudaa su njub dafa mel ni réer dafa nekk jëmu njub nekk jëmu ñoom ñu ñëw jëndee réer dégg nga ñu jëndee njub ci ak réer waaw famaa rabihat moo tax bénéfice tijaaratum seen commerçant la maanaam bi ma wax naa famaa rabihat fii tijaaratihim seen commerce bay doon def amuñ sa bénéfice mu ne famaa rabihat tijaaratum fii tijaaratihim ci seen commerce ba jëleewuñ sa bénéfice pertement lañ ci jëlee wa maa kaanu nekkuñu muhtadiin da aji gindeeku ñoom mm-hmm. naa feqe yi masaluhum seeni exemple seeni melokaan seeni sifaat ka masali la si def ma nekk waajoo xam ne itawqada taxal na naaram safara ci jamono lëndëm ak jamonoy sedde mu taxal safara dana am ñaar dana si a jaaroo wante yi dana si leerloo falamma adda at ba leerale safara sa maa da nekk ci booram waaw da nekk ci booram safara sa bam leeree nga xam ne foo yaa ngay gis lépp lu la jub si yaa ngi koy séen waaw ba loolu leeree saxaaba la demee allahu yàlla bi nuurihim seen leer ga andi ngelaw loo xam ne dafa rëddi mu yóbbu safara sax lépp dem wa tarakuhum yàlla bàyyi leen fii sulumaatin ci ay lëndëm réer foofu ba ñoom laayam soroon du ñu gis fi ñu teg seen tànk loolu benn exemple la daf mel day nekkoon ci réer nekkoon ci ak ak leer ak ba yonent bi ñëwee leer gi ñëw mu laa ne na safara si andi na leer bu leer naaj ñu weddi yonent bi nekk naa fekk leer bu dem si ñoom lëndëm ñëw si ñoom waaw ñoom de sumun way tax leen bukkumun way luu lañ umiyun way gumba lañ fahum ba ñoom laa yarjuun duñu deltu ginnaaw mukk ci seen réer bu ñu réer dañuy tax boo leen da wax duñ la nangoo déglu dañuy luu suñ gisee dëgg di nangoo wax dañuy seen maxa nangu ñoo xool njub aw kasayabin wala seen exemple dafa mel ni ki borom taw taw mu ne sama ba jëlee ko ci niir muy asamaan fii nekk na ci niir ba sulumaatun lëndëm wa raxdun ak dënnu wa barqun ak melax yajaxaloona ni ngay def asaabi'ahum seeni poli baaraam fii asaanim seen nopp ya mina sawaaxaq ngir taru ngir ngir taru baatu dënn ba wala mina sawaaxaq ngir ragal dee mene sawa ngir taru dënn bi xasaral mawti ngir moytu ndekku dee wallaahu yàlla muxiitun ku peeg la bil kaafirina ci yéeféeri ñoom daal niñ daal dafa mel ni ki taw mooy alxuraan di wàcc mooy taw bi fii sulumaatun wa raxdun xam ne ay lëndëm lëndëm am na ay dënnu mooy tëkku yi am na melax mooy euh, maanaam lay yi nga xam dafa leer naññ ñoom na ñu ngi fab seen poli baaraam yi doo seen nopp yi bañ a dégg waaraay te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xasaral mooti ngir mooti dee te xam ne wallaahu yàlla muxiitun ku peeg la bil kaafirina ci yéeféeri yakaadu xaw na albarku melax gi yax tafu muy këf absaaruhum seeni gis xaw naa yóbbu seeni gis kullama addaa saa soo xamee leer na luhum ñee leen machaw ñu dox fii ci leer ga bu leer leen nag ñu dox bu isaa ak la bu leen demalee xale yi ci ñoom xaamu ñu taxaw bu ndaxa ba mu yàgg ma leen ñoom fu ñuy teg seen tànk ñu dere taxawaat ba leer ñëw lan mooy loolu su yonent bi waxee loo xam ne dafa dëppoo seen bànneexu bakkan ñi d'accord su waxee loo xam ne dëppoo na seen bànneexu bakkan ñi taxaw loolu moom d'accord yi si seetaan lenu li ñuy def mooy xaamu wa izaa la maalim xaamu wala saa bu la zaaba mu demee bi samaam seen dégg ya wa absoorihim ak seen gis ya yëpp yàlla yóbbu dootuñ gis dara dootuñ dégg dara inna allaha yàlla ala maanaam xadirun ku man la ala kulli shay'in ci bépp mbir nag bu mënta doon rek yàlla am na kàttanam daa sante sadaqallahu asim wa balaqa rasuluhu nabiyina mustafa alkarim allahuma salli ala sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira